xana wedd rek wedd ci dëkk ci wedd ba tudd ci suuf rek la ci nekk waaye nag li nga xamante ni nii moom laa seetlu ci sama bopp moom rek laa wax pour jox la benn exemple rek dama wàcc dem euh, ñëw Sénégal ma sax kon kenn yëguma sama yaay rek moom moo ma yëg ma ne ko kat ñëw naa Sénégal mais maa ngi nii jubal Casamance Casamance wuti fa wàllu wuti fa ndimbal ci gars yi parce que man sono naa te xam naa affaire bi jaar naa ci maama nii nekk ci Kajoor gi yépp waaw dem naa ci Petite Côte beeg fépp mënuma ci dara kon maa ngi dem côté ba région yépp def naa def naa fa 21 jour di wër ko ma faj aw ma saafara fu ma dem mënuñ ci ma mënuñ ci dara lu ma jox it bu ma ko takkee wala ma sangoo ko dara dara sottiwul ba nga xamante ni nii dem naa ba mu yàgg ma ne xaaral ma na parce que comme def naa fi trois semaines di jéem a dem dugg ci quatrième semaine bi presque te borom njaboot laa naa dem bu ko defee samay waa kër gis ma au moins sama njaboot gis ma samay doom gis ma comme am naa moom ay juróom juróom-benn doom naa dem ñu gis ma bi ma yegsee timis laa fa egg bi ma yegsee ba nga xam te ne tëdd rek a jot. ba nga xam te ne boobu temps dugub gu ma ci sama néeg de maa ngi toog fi ma toog di ci ba mu yàgg ma sonn man leen comme vingt une heure jot na parce que dix heures ngi waaj a jot xaaral ma nag dem préparer sa sa xëppoo ndox sàng noppal noppal sama yaram bi ma duggee ci douche bi billahi wallahi yàlla ma seede gis nga sama sama ba tëb di dal di tëb di dal di tëb affaire di jaaxal ma ñëw sama yaram bi tàng jër ma man lii man man affaire boobu jaaxal boole ko sama naq rek li ma metteeg yépp ne waxtaan ak sama yaay sama yaay ni ma defal ko li mu bëgg rek defal ko li mu bëgg rek comme sa jabar defal ko li mu bëgg rek ndax jàmm am ci kër gi te bëgguma fi dégg coow ma def topp waxi ndigal waxi waajur defal ko li mu bëgg lépp benn ngi noonu ñaareel bi ci des ci 2019 bi dem naa fi senegal deux fois am na ci boo xam ne damaa ñëw yegg si ma ne parce que wax naa ko avant may jóge bitim nee naa ko soxna si ma ne ko man na mel na ne dama yoom fi mu toll nii mais bu ma nee ko damaa moom du ko dikk du ko indil benn problème nee naa ko man li ma yëgatuma benn yëgatuma benn yoon ni mën naa ci jigéen dara mais nit ki bu la ne boo nekkee sa jëkk jabar mu mu nga di ko wax problème yooyu ni ko vraiment problème mu góor laa am moom est-ce warul warul de warul am benn maanaam jaaxle warul am benn jaaxle mais wanewul benn jaaxle ci li ma koy wax loolu wanewul benn benn benn jaaxle ah ma dugg bal bi xam ne xam na xam na ma xam saa su muy ñëwaan trois heures du matin quatre heures balaa fajar ge jot ñaar lañ sëñ gis nga damaa ñëw jour bi mooy jamono bi ma ko waxee ne ko damaa yom insisté ci pour bëggoon ko découragé la rek sentir maanaam xool état d'âme nu mu mel waaw ay feeling am nan la mel nan la ko sentiree waxu ci dara man bi ma ñëwee tamit ma def politique ne ko man damaa yom damaa yom premier jour tekki ma deuxième jour tekki wun ma troisième jour tekki wun ma quatrième jour te damay wàcc ci suuf ci suuf laay tëdd suuf laay tëdd ko moom ak lal bi ko damaa damaa bëgg a tëdd ci suuf rek bàyyi moom a féetewoo ci suuf gis nga quatrième jour bi dan maa fecc bi dan ma fecc fecc bo xamanteni gis nga par la force sino duma am jam sama yaram yi dañ day metti boba dañ ko méttital noo xam te ne c'est pas possible may am faiblesse sexuelle suma tambalé sey bi damay bëgg sey mais duma mëna sey a sëy sama jabar tok ba mu yàgg ba ci at momu jeex mënuma amna am na lu soppeeku ci parce que vraiment sama jabar ji nek bitim rew ni ma yaw de vraiment man sentirutuma ni san amatuma satisfaction ci yow nu mu demee noonu man ne kon may may négocier may négocier defe ne man maa feebar wala nu mel noonu man mi nag am na lu ma dal man mii am na lu ma dal waaw ci diggante boobu nag laa toog toog toog ba mu yàgg may jàmbat ay biir yu métti lu nekk gën maa sonal daal lépp gën maa sonal noonu laa jàppee nag ba benn jour ma enquête ko ma enquête ko ni ko waa yow ana sa or bi nga xam dama bëgg nga génneel ma or bi nga yoroon fekk na am na benn xaritam boo xam te ni di nekk sama xaritu jabar loolu nekk sama xaritu jabar mune ma ma di may jambar dem ci mom diko nek ci ñom dem dem sama kër kopi copain bobu dafa waxtaan ba waxtaan ba wax ba wax ko samay problème nak mune ma nak kay ma wax kay ma dey la nak sama jabar ji ma mujj tak ni fan yi nga xam tane mok mok sa jek sa jabar bi nee ma ci bopam togul dank parce que jabaram togul dana ko def lu bon te jabar jamu bi tim rew mom la bëggut moom la bëggu jaay na oram bi mu yoroon yëpp ñetti sooni or ya mu yoroon yëpp jaay na ko tam woo tantaam ji nga xamante ne nii koo xamante ne da ngay tëkku sa sa sa naan ko fii kekk la nen du fi bonde xam ne kañ nen nen nen bu fa bondee tax loolu da moom dégg naa ko sama bopp sama nopp moo may ak noppam mu ne ma fii kekk la nen lu fi bond 2008 ba léegi je suis impuissant ah ba ma génnee wala bokk man même bu ma toogoon sama kër sax Sénégal toog ba mu yàgg ma toog ba mu yàgg sangu rek taal sama oto rek ni maa ngi dem seeti diw xoola day mel na maa xoj ci ndox ba kër may ñëwaat bu ma ñëwaatee nag bu ma duggee ci douche bi di saw wala préparé pour tëdd bala maa génn douche bi sama yaram bi sama sama yaram may sant sama yaram ni muy ficci ko di ko di ficci ko di sama sama euh, battement de cœur yi di yokk sama pouls bi di yokk sama deret di tàng